Farba Ngom démb moom itam def na jàkkaarloo wax ak waa réew mi alerte biir këram ndax daal gars yi dañoo ànd ak Jérôme Jérôme moom nga xam ni koo jàppoon xaw a jeexi jaaxa ci ay mbiram li jaaxal Sénégal yi nag wala lenn ci laaj mooy lu tax ñu ànd ak Jérôme rek dem këram ndax da koo tudd ci mbiree wala waaye nag alerte na moom ni këram daal lépp lu ñu fa gis moomu ko mën nañ ko faa dugal moom Farba Ngom te nag kenn réewu ko mën a dem tukki ji ñu déglu si lëf te del su at ñu dajji première chambre ñu dajji beneen néeg encore génnee lokk yépp ci suufu lal yi visiter xool yéeg wàcc au moins deux heures de temps ci kër jàmbur normalement perquisition du lu interdit normal mais nag day fekk yow mi déjà c'est un consentement il faut nga yëg ko ñu ngi lay ñu ngi perquisitionner sa kër nga taxaw fekke ko lépp lu ñuy ubbi di ko def nga fekke ko loolu mooy yoon wala mu am mandat du juge nga xam ne juge d'instruction moo autorisé ñu def perquisition sa kër je crois bien loolu la droit wax ci biir réew Farba Ngom est en Sénégalais nul n'est au-dessus de la loi bu ñuy appliquer yoon ci sama kaw dama koy nangu mais li nga xam ne ne teguñu ko fenn waruñu ko def dama koy dénoncer ci kanam opinion bi te lu luñ ci bëgg rek bëgg naa ci li ko raw voilà léegi nag lan moo may wax ne man lan moo may wax ne lan moo may wax bi ñu demee ci kër gi su ma ko waxul opinion bi ci biir tool bi bi ñuy dugg yéguma ko fekkewuma ko lan moo may wax ne dañ fay dugal arme boo xam ne non autorisé ëllëg ñu naan lii Farba Ngom moo fi denc arme bi lan moo may lan moo may xamal ne bi ñu duggee bi ñu duggee ci biir tool bi indi nañu foofu ay drogue wala ay cornetu yamba ñu naa lii Farba Ngom toolam am na drogue raison pour damay aviser opinion nationale ak internationale ñu xam ne ne lii xew dem doy na waar police police nationale la gendarmerie nationale la armée nationale la loolu yi ko bokk kenn moomu am naa yaakaar man Farba Ngom le général Jean-Baptiste qui est le ministre de l'intérieur am naa yaakaar ndax formation am gendarme la il a occupé des hautes responsabilités dans ce pays un gendarme bu sol tenue dugg di assurer ordre public bi su demee ba nekk au commandant de la gendarmerie ñëw na ci situation ci njàngum école université la yem il a été au commandant de la gendarmerie du gan ci wàllu état xam na luy doxalin réew yaakaar naa ne yëgu ko man ci sama yaakaar. voilà mi ngi noonu kooku mooy Farba Ngom nekk maire ca Agnam waaye di député eh, tamit teg ci di géwalu président Macky la kàddu yi la yëkkati ba tax ñenn ci farandoo yi Farba yi ku ci mel ni ah kii eh, Fall Adama Fall ñu mën koo tudd nee na bis bu état laalee Farba Ngom. Mm. réew mi dana tàkk. Mm. bis bu ñu laalee pepp karawam réew mi dana tàkk. Mm. waaye daal lii la ñu wax Jérôme lañ nag lañ àndal ba ñuy dem këram mooy waajooju ñu jàppoon te ñu ni sniper bu président Macky Sall la woon. waa am na solo sony bu euh, buñ laalee nit réew mi tàkk yooyu moom loolu moom ay waxi yee fitna la rek te du wax joo xamante ni waxi wax ni ponkal du wax joo xamante ni waxi jàppale nit ki la gis nga nit ki bu nekkee fenn da ngay taxaw nga wax dëgg moo gën ngay wax yoo xam ne ay fitna la te ndax fitna baaxut mhm. boo dee xool Farba dañ koo tooñ ngom waaw ndax yoon lañu teg ci suñu dëkk ñun ñëpp yoon yilif ñu mhm. far ba tey jii sony bu mënoon naa exemple mm-hmm. mënoon nañoo dem fekk dorog foofa mm-hmm. tool ya mënoon nañ fay bay yàmbaa ndax ay tool la mm-hmm. mënoon nañ faa fekk ay fital yoo xamante ni amul autorisation mënoon nañu faa kii sax mënoon na fay denc fital yoo xamante ni mooy fital yi ñu doon kiyee mënoon nañ faa denc kat kat mënoon nañ faa denc lu ne mais ginnaaw bañ fa demee ci luñ yëgut dajji porte yépp dugg di këlfe ginnaaw booba lañ ko tooñ. boobu lañ ko tooñ. waaw ba ñuy dem bi ñu jàppee waa ji ba pare. dañoo war a na woolu ba convocation lañ ko war a jox bu ñëwee ñu ni ko yéegal ñu yéeg ñu ni ko sa kër lañ jëm duñ ko wax sax nañ fa tase de dañ koy woolu moom mu ngi jiitu du xam luñ koy doyee ñu ne woolu nañ ba kat ñu ne lan lañ ko war a doyee ku ne di wax ñii di sos naan lii lañ koy doyee ñii naan nangam xamu bu nee ba àgg ñu ne ko dañoo war a ñëw ñu dem sa kër. buñ demee ba këram ñu ne ko tijjil porte bi ñu xool mu tijji ñu dugg wër wër wër ba pare ni ko tëjal mu tëj ñu démarché beneen ba porte yépp daj luñ fa gis ni ko lii lan la bu aajowoo film sax ñu filmé ndax ñoom loi may na leen ñu film buñ noppee teg teg liñ gis lépp ñu teg ko ni matériel bi yépp ñu ngi ko fekk kër Farba yamba ji ñu ngi ko fekk kër drogue bi ñu ngi ko fekk kër Farba kii ñu jàpp kan matériel bi mi ngi ko doon denc kër Farba mais fi mu nekk nii même bu loolu amoon it mënuñu ko def si bopp nit ñi mën nañoo teg ni politique la jàpp nga ni yoon dina doxee noonu noonu. nii ko far ba waxee yoon nii lay doxee non dama ne ndax jàpp nga ni nii ko far ba waxee. waaw yoon dina jalgatee noonu. waaw nii nga far ba ci ci gaa ñi nga gis ni jub jubal jubanti jàpp nga dinañ salfaañe. moo tax mu ne ak yelleefu nit. moo tax mun la ministre de l'intérieur yëgul li ñuy def. yëgu ko loolu la wax loolu la far ba ah. wax ndax bu ko yëgoon jàng na xam na yoon lu mu mayee si nit ku am àqam ak yelleefam nga dem këram gudd nga dem këram xuma heure ba fa dem nga dajji bunt yëpp naan daam looy wër ba nopp jëlaat waa ji yóbbu ko waa ja nga àndal moomu foofa far ba moom moom foofa donte waa ji bu la joxee foofu ay information pour nga xam information yi wol borom nga dajji si kanamam mu gis bu ko defee ñun ñëpp ñu xam ne ba mii def na lu dul yoon ñu teg ko ñu sanctionné Farba ñun ñëpp ñu d'accord mais am na noo xamante ni bu buñ nee woon gis nañ ko fa ngànnaay lim wax Farba leeral na nee na ñu fa fekkee nangam moom moo bu ñu fa fekkee nangam moom moo ko buñ fekkee nangam moom moo ko léegi nag bu ñu nee tey jii bu ministre de l'Intérieur génnoon ni fekk nañ fa nàngamit dañuy fekk ñun far ba wax nañu moom ko ba pare te mën naa moo ko moom mais dañuy d'accord ni moomu ko ndax yooyu muy annoncé ni moomu ko mm-hmm. ba ñuy jàppi ji waa ji nee nañu fekk nañ ko këram muy lu ñuy jëfandikoo arme ay arme ak ay passeport diplomate ak xaalis waaye léegi li ma jaaxal mooy nit ku ñu jàpp hmm. xam nga takk deere moom jàpp naa ne xamuñu woon kër Farba Jérôme hmm. mi ñu jàpp moo xam kër Farba hmm. léegi bu ñu koo xam ne nee nañu dañ koo tuumal ci ak njubadi jékki-jékki ànd ak kooku rek daa débarqué ci kër ga lu ko booleeg waa ji xam nga xam nga waa parce que takk deere moom yaakaar naa xamuñu woon kër Farba ñoom ñëpp xam moom nee na fii lay toog Dia mu ne xaritam. waaw Moussa Diop sa Asim waaw. ni waa APR gépp seen xarit la xam nañ ko. waa ji tey ji bu ñu demoon këram fekk fa dorog mun leen dépp baa ngi kër Farba. waaw bu ñu demoon waa ji fekk dorog mun leen dépp baa ngi kër Farba bu ñu dem kër Farba mais nañ woo Farba. yóbbaale ko d'accord bu àggee mu dajji ni dépp baa ngi nii. ñu xam ne kat Farba moo def lu dul yoon. dépp dorog am na. ah Moussa man de xam wóoruma <laughs> sama yoon nekku si ay dépp dorog ak dépp kii joxal. damay laaj rek waa joxal hélas damay damay laaj waaw joxe hélas damay laaj Assane mais xanaa laaj ba ñu yow. tey waroo maa laaj jàpp trop am na. loolu moo ko wax non non non. yaa ko wax. non waaye moo ko laaj. mais yaa ko wax. xam nga ci dara dara. mais bu dorog. dépôt ba nga tuddee dépôt man ma la ndax dépôt dorog dafa. yow tudd nga fi mbay alaaji waa ji fi mbay tudd fi dépôt. dara ay tool la far ba wax joxal hélas waa mais Assane kenn laaj. dox <laughs> hélas. <laughs> ah dëgg yàlla man dañ ma fee teg pour laaj. waaw lii dee su ko laaj. ma bàyyi dépôt bi mu ne. waaw baal mbay mi. dox hélas waaye yooyu yëpp lu ci nekk mën naa ne. waaw. Hmm. Hmm. jox ko. lépp dorop conteneur nag day am. te ngaa jox hélas. Hmm. <laughs> aywa seize mille personnes yi tegalu si lëf di seetaan ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni ku abonné wul nga profité abonné i tamit ku ko mën it nga partagé ko ko ko mën it nga def ko say statut ak groupe boo mën di bokk te bañuñu ko muy groupe information yi rek tëmbal fa lien ba incha allah njóogu lii ñu déglu léegi de moom la ñu far ba wax de ay alerte yoo xam ne def na ko ñi débarqué woon këram sans ñu aviser ko pour moom mu fekkee lii waaw xam nga mën nañoo am mandat pour euh, perquisitionner <laughs> perquisitionner këram. Hmm. ah juge sans ñu avertir moo la koy defal de mën ngaa mandat de ndax yor nañ ko wala yoruñu ko laataan ñuy dem di dugg ci kër gi waaye tamit waa ji. Hmm. est-ce wax na leen ne kër Farba lay dem wala këram. Mm. parce que tamit loolu tamit mën na nekk beneen. Mm. peut-être mënoon nañu bañ a xam ni. kër farbal kër farbal. Mm, mënoon naa waa ji wax leen ne leen sama kër gi nekk fële. dégg naa la. mën na nekk ay kii ak yooyu. waaw fekk ñoom après waxee la ñu doon xam ni que farbaa ko moom. waaw mën na am yeneen yoo xamante ni bi mën na nekk ci biir yoo xamante ni enquêteurs yi ñoom rek ñooñu ci mën a indil. lan moo sabab euh, yëg. ñu waaye jàpp naa ni. gars yi duñ ñu yaakaaruma ñu ñëw rek dajji kër jàmbur noonu. waaw yaakaaruma loolu quoi ñëw rek dajji kër jàmbur noonu sans pour autant que ñu am lu waral tax ñu def ko. parce nag bul fàtte ni dañu woote jub jubal jubanti mm-hmm. donc jàpp naa ni bu ñu expliquer woon dinga xam ni am nañu. Mm-hmm. sañ-sañ ngir def li ñu def. mais defuñu ko ci maatay gëw ma ni def nañ ko ci maatay. léegi nag xam nga euh, li problème mu enquêteurs yeeg kii bu ñu communiqué wut policier moom dañuy génn rek jeebaane yëf yi. Mhm. yóbbu ko ci terrain politique maanaam mën na am sax yii muy tudd peut-être que ni euh, dafay njëkkalante. pour wax ko pour balaa gars yi di wax ne fekk nañ fa lii ak lii. Hmm. léegi nag ndax teel na koo tudd lool teel na koo tudd lool parce que jékki-jékki xam nga man tey boo demoon jékki-jékki dana dagaj sama kër. Hmm. Euh, yaakaar naa ni mën naa bañ a am yoo xam ne mën naa ko sama xel mën na cee bañ a dem. Hmm. ah dencoon naa fa xaalis ak sama sama kaamil baag waaw sama kii baag sama laag xam nga mais am na yoo bari te far ba sax. li yi di jo doon jortu sax ba léegi tudd ko ci biir wax ji bu ngeen fekkoon xaalis <laughs> waxu fa waxu fa xaalis. waaw dëgg dorog la fi wax wala ay arme arme waaw. xam nga ay arme ak affaire yooyu. te hmm. nag bu bu leen fàtte ni euh, réew mi toll woon na foo xamante ni fii euh, arme yi mënoon naa deme neneen. te hmm. waa ji nga xam ne moo leen fa yóbbu. Hmm. waaye joo xamante ni bii euh, waa ju kii la. dëgg la. donc xam naa ne daal ay enquête moo kii te ba léegi dégguñu ñu communiqué ci. dina leer daal ña nga xam ne ñoo fa demoon peut-être ñoom xam nga kii moom nee na bu ñu fa fekkee lii bu ñu fekkee lii. Hmm. peut-être que ni ñoom bu ñu génnee dinañ ñu gën a jox ay. explication ci question ci lii. parce que bañ fay dem nan lañ fa demee. ndax dëggantaan yoroon nañ këyit guy firndeel ni war nañu mën a am accès ci kër gi. Hmm. wa bu fekkee ne waa ji moom daf leen a kii wax leen ne këram laak yooyu ñu xool lan lañ ci jublu. mën naa am daal yeneen yu bari yoo xamante ne mais mais alaaji li ma laajoon euh, Assane laa lay wax exemple. Hmm. bu ñu gisoon ki gën a tribal ci koñ bi ñu jàpp ah, ko. Hmm. ñu jékki-jékki rek ñu woo la ñu ne waa ji de ànd naag éléments yi dikk ñu ngi sa kër. waaw bokkul ak ak jànkatu ah, xasida. waaw ah, loolu loolu loolu loolu kay kii bu loolu la dañuy ma nga sa kër alaaji. déggoo ma ne lu muy signifié déggoo ma ne la loolu moom. kii bu doy waar la. diw sa kër kan la diw bu kii bu doy waar la ah, waaw parce que tey jii jékki nit ki nit ki la yóbbu see kii ci sa kër waaw loolu rek d'abord euh, mi ngi ñuy far farba ban genre nit la ci beneen angle si comprendre parce que waaye moom li waroon a wax kay sax leeral ko mooy waa ji kat xaw ma ko voilà waroon na ko leer xaw ma mooy loolu waxu ko ñemewut a wax loolu waa ji seen xarit la ñoom ñëpp dañuy koy fréquenté mhm. li nga wax noonu moom loolu rek mbir la moo xamante ni bi mbir mu doy waar la. Ah, am na ñoo xam ne bu ñu nee ña nga sa kër moom. <laughs> waxee rek du jànkati xasaayit baa ngi sa kër <laughs> la. sa sàmm dégg wala wala mu wala ci kër gi. da ngay teel a wàcc. Ah. Ah. mu war sa kër. <laughs> waaw lu mu fa war a wut sa kër gam dëkk dem tool ya. waaw dem fañ dem waaw sa tool ya bàyyi kii kër yi yëpp ay ay mbir la xam nga daal nañ déglu rek peut-être que ñoom dinañ ñu wax luñ fa fekk. en tout cas kii wax nañu liñ daaj. waaw ah, nee bu ñu fekkee nangam it de moomu ko moom. Ah? ne luñ fa fekk moomu ko de. itamit nee na kenn mënu koo tere génn réew mi. Hmm, loolu moom déggoo ko ah. noonu waxeewu ko noonu sax. Hmm? parce que defe naa daf ne. mandat da ne mandat député am jeexagul. waaw ba pare dafa am immunité bu dee yoon la ñuy wax waaye farma nag ma li ma jaaxal mooy le fait que mu interroger yoon ñoom APR man damay am problème bu ñuy wax yoon. Ah, parce que ñoom neen nii dañoo woote rek ñoom ñoom ñoom ñoom dañoo dañoo war a wax yoon dañoo war a di wax sax yoon hmm. waaw parce que ñoom wax dëgg fa yàlla bi ñu fi nekkee dañoo jël yoon teg fële di def lu leen neex tey jii ñu bëgg a ñëw di wax yoon moo tax gis nga yoon du lu kenn war a néewal doole hmm. parce que gis nga yoon day daan war sa kaw yow moment bi nga xamante ni bii da nga ne faale woo ko hmm. gi mën naa dëpp rek nga yitte woo lool yoon maanaam yoon faw ñëpp cëral ko. ak mhm. position boo mën a ne. Mhm. da nga war a jox cër yoon. dëgg la waaw parce que tey jii am na ñoo xamante ni bii tey démb. Mhm. faale wu woon yoon. mais tey ñi ngi am lanteeg yoon. d'accord hmm. macha allah ngeen yëf dëppoo. donc moo tax lépp loo xamante ni bii da koy def rek. fexe koo teg ci yoon. d'accord boo ko tegee ci yoon rek. da ngay moom. d'accord waaw.